बता Badar nunca. Era belo. Passa, velho. É, vai. Vai. Vai, vai.

aber Thank you.

léegi ñu béy bu ñu bëgg a xëy na boo fi jël xam nga loolu ñan ñoo ko ñan ñan ñoo koy def tey jii léegi li déedéet ñu am benn Sénégalais bi ñoom tey jii ñoo tey jii ñoom ñoo intérêt askan wi da ngay ko lële yéen a ah au détriment de leur propre intérêt parce que loolu tey jii franchement parle ban crédibilité la ñu war a mën a jox léegi les les les poussées. poussées poussées poussées reste reste

mu ne ma mbir mi da ngeen ci wara wax parce que ñun biñ fi dëkk jamono sengor la waye waaye ñemewuñu won tabax yenn tabax yi parce que jamono joj dañ ko interdire won ta amoon nañ moyen mais tay suma taxawé sama terrasse ñun dootuñu gis geej mané ko mais yow vous êtes yéen vous êtes les premiers concernés mais est ce que tay suñu ñëne won génn ngeen génn leen di ngeen génn kenn ci yeen du génn lool nak moy le mal du Sénégal soko waxé ñu ne wax ji dafa naqari waye ñun nekkuñu fi di seet lan moo war a neex nit ñi waaye dañuy seet li yenu maana ak li dëgg ñu wax ko tey euh, coono gi ñu daj ak mobilisation bu ñu def pour ñu yokk deux heures de temps ci couvre-feu bi jëlee ko vingt une yóbbu ko vingt trois bu ñu defoon xaaj bi ci mbirum corniche bi problème bi réglé na couvre-feu boobu ñu yokk deux de temps lan la changé ci dundu Sénégal yi est-ce que yokk na seen liggéey wala seen afia wala waaye soo fi ne woon suñu pétrole ñu ngi koy sàcc suñu gaz ñu ngi koy sàcc suñu zircon jaay nañ ko suñu littoral bi dem na suñu géej gi amatuñu jën nga né sénégalais yi mobiliser bu boo moytul so démé obélisque do am lu mat euh, trois euh, deux personnes loolu nak moy problème Sénégal nañ ko waxanté né nit ñi xam lan moy priorité fi nak suñu plage ñun dañ fa yagg di entraînement yagg na fi di ñew and ak famille yépp samay dom gis ngeen ñi ñëpp famille bi la les garçons ñu ngi ñëpp ba ci ma princesse Fatima ak

moy du problème ben nit wala ben courel problème sénégalais Sénégal su ko Sénégalais yi mu arrêté tay dina arrêté bu yalla nima ci wax nak ñaar la foofu la ko conclure ben bi moy ñi mu concerné ñi ñu jox fi bu yebo di la lance un message bu yebo ñu bañ fee def seeni milliards parce que ñun de bu ñu yàlla dencee réew mi ku fi tabaxone dinañ ko génné parce que sénégalais dañu am accès à la plage et au littoral loolu mooy premier message bi ñaareel bi les autorités administratives <laughs> bi les autorités administratives yi nga xam ne ñoom signé kayit yi ñu ngi leen di wax ni képp ki nga xam sa complicité sa responsabilité engagée na di nga rendre compte devant la justice c'est dootul nag faux départ yi ñu defoon tappale yi ñu de def traque des biens mal acquis yi nga xam règlement de compte politique ku fi def loo warut a def yàgg naa ko wax samay discours samay mitin wàllu suuf si ku ku fi def loo fi warut def bu soobee yàlla bu fi Macky Sall jóge di nga dem rendre compte te négociation du am intervention du am kilifa du ci dugg di nga rendre compte parce que lu Sénégal yëpp moom ñetti nit ñeenti nit jël ko lekk ci ay milliards dafa dul yoon dafa war a jeex ci réew mi loolu lañ ci mënoon wax ci lu gàtt di wax nag nii c'est dommage gis nga fi mu ne nii mu commencé fële fële lañ ko jëlee hôtel yi di ñëw di ñëw lepp jël nañ ko ba fi mu kenn amatu fi droit kenn mënatu fi def dara ok littoral bi yëpp jël nañ ñun dans dans dans quelques mois mënatuñu fi ñëw naan dañ fi entraîné wu ah loolu moo ne woon li ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt la ca des nag euh, invitation la woon bu ñuy lancer Sénégalais yi pour la pratique du sport xam ngeen ni depuis quelque temps dañoo lancer ñun ay programme bokk na ci programme joxe deret les sportifs là yéen est-ce que joxe ngeen dara. waaw ñun joxe naa dara. Ah, ah ñoo joxe kii joxewul. man joxe naa. non joxe woo dara waxoon naa. man man je fais partie de Pastef. waaw mais kañ nga joxe joxe woo. joxe naa dara yaa ngi nii entraîné ba. bu dem joxe ko ñëwaat. bañ ah. koy joxe xam naa ko su ma gisee gars yi rek joxe ko quoi. bañ koy joxe xam naa ko gars yi fii ñu ngi fii centre de transfusion sanguine Fann. Ah. du ñoom ñooy wër dina seet. mais ñun dañuy déplacé wu. via euh, notre club là fii au Sud Plaza. waaw euh, Dakar Nakam. on fait partie dañuy dem joxe. très bien ñu toll. mais ñii dañu war a ñu participer ci loolu. dañu a joxe très bien kon pratique du sport dafa ànd ak loolu ku wérul munoo joxe deret lii suñu programme yi ñu engagé muy reboisement bi muy dem di nettoyer les plages les les les lieux de culte.

ñooñu nag ñoo wara a def sport nous invitons tous les Sénégalais à la pratique régulière du sport du sport comme on dit un un esprit sain dans un corps sain loolu moo mën a tabax ab réew. kon loolu moo ne thématique bu gàtt une ñu doon andi di leen wax euh, même dans le cadre du parti dinañu lancer un concept boo xam section yep commune yëpp dinañu jël tous les dimanches daje ci place bi leen gën a jege wala ci terrain bu leen gën a daj les dajale ñëpp. góor ak jigéen ak ñëpp mu am un moniteur buy conduire les les trucs ñu def une heure deux heures de sport nit ñi doog a dem seen kër loolu moo naan lu ñu leen doon andi ñu ngi leen gërëm di leen sant kii nag di def film bi euh, El Malick Ndiaye gis ngeen biir bi waral sa biir bi waral sa biir bi dara newu fi dara dara newul ci tànk yi dara newul ci tànk yi gars yi comme ni ngeen ko gisee donc live bu ndaw la woon rek euh, ni mu leen ko diggee woon saa su nekk euh, bu di wax ci différentes thématique yoo xamante ne nii dina soxal askan wi te nag ci wàllu saax-saax bi ñuy saax-saaxee littoral bi la doon wax euh, yaakaar naa ne dégg ngeen liñ ciy wax même bu dee qualité sonor bi xawoon na des ndax vague yi ak coow li mais ñu ngi leen di dox euh, jox di daje euh, bientôt incha allah ci beneen fànn ak beneen thématique jaa ngeen jëf